sama yàggaayu gi wax nañ ba tàyyi duma ko bàyyi Omar li ma lay wax rek man booy maandu ba daj ci man dee ngaa dëpp ay ca sa gan na nuyoo a nga wax ñu kana euh, ñu ngi lay nuyu di nuyuwaat ñëpp di am bànneex bu rëy dalal Gallo Tall membre Gallo Tall. Gallo giflé giflé giflé la sant. mais Umar balaa dafa commencé parce que man dégg naa Umar xaw dafa ñëw takk ay verre tay euh, diplôme non Umar léegi. mais yow man allez-y <laughs> mais attends wuy question Gallo nu sant. Gallo Tall. giflé eggale. ah dinañ ci dégg. Amar Suzanne lay nuyu. Garo ah? mais galo Tall membre comité directeur <laughs> parti démocratique sénégalais. Mhm. doon secrétaire adjoint chargé de l'organisation et de la propagande. ci biir parti démocratique sénégalais. di euh, kuréel gu yes goo xam ne ñoom taxawal nañ ko di secrétariat bu bees ñu jox ko ci cër bu toll noonu galo bala ñuy dikk ci waxtaan wi ñu nuyu la dalal jàmm am mbégte ak bànneex bu rëy nag ci sa teewaay. jërëjëf jërëjëf Walfadjri. Mhm. yaakaar naa ne mbégte kenn mais damay profité rek ci waxtu bi. Euh, di ñaanal Sidi Lamine amiin di ñaanal fekk yàlla xar leen àjjana soxna Sër Ataay jox na ko léegi c'était la voix des sans voix euh, mais bàyyi na fi loo xam ne si je que ni loolu moo waral dund dund mooy nga bàyyi fi luy dund mm-hmm. yow boo demee nga bàyyi fi luy dund mm-hmm. wala fa jël te yéen fi nekk gàcce ngalaama loolu la ñu koy commencé ci plateau c'est une synergie sacrée de talent service de Walfadjri j'allais même dire au service du peuple saa mhm. njóobu ku ne xam nekk amu ci maas Omar ma xamul la feneen xamul la kontaan naa ci recrutement bi wala boobu lu mënti doon merci ci sama jigéen mhm. ku nga xam ne ni de fer la boo nekkoon wàcc ko nekkoon ci réseaux sociaux yi mhm. di ci def ay preuve donc bu Walfadjri amee vision boobu jël ko indi ko ci seen plateau deful dara leneen lu yokk waaye aussi euh, wolof Njaay dafa nii peccum liir balaa neex ndey jëtee ci mbagg ya mhm. wala fakir yi liir la boo xam ne peccam dafa yàgg a neex te kenn teewul ci mbaggam mhm. li ma bëgg a wax foofu mooy su ngeen demee ay nit wóolu leen ñëw di leen gunge ci émission dañ leen war a sant kon encore une fois lob maam jaara tey mhm. maam jaara dama leen ñaan lu ngeen jàppale wala faj ngeen gën koo yokk comme dañ daan fecc te kenn jàppalewu leen bu ngeen leen jàppalee fecc yi mu gën a neex donc maa ngi profité di nuyu waa Kébémer gi nga xam ne conseil municipal laa fa di nuyu parti démocratique Sénégal yëpp nuyu sama wasila ci politique maître Abdoulaye mais aussi di sant Serigne Touba Cheikh Moutada bu baax a baax a baax di gërëm waa Daaru Musi parce que fa laa bokk xam nga murid moom garab la goo xam dafa am branche am xob mhm. branche bi ma bokk Daaru Musi xob bi ma bokk kër Serigne Koso Asulo la nekk Sarsar muy profité di sant sama Serigne Serigne Kara Koso Asulo très bien Gallo Tall jërëjëf kontaan nañu dégg na li nga wax euh, lépp ci Walfajri mais waxtaan wi dañ koy door dama lay wan euh, tey jii Diallo balaa ñuy gën a xóotal ci waxtaan wi une une bu Walfu Quotidien dañ ci bind Sonko agneau du sacrifice retrouvaille Wade Macky kon actualité la falaay doore ak yow ñu ngi nii. waaw nan nga nan nga gisee une bi ban commentaire nga ciy def déjà. commentaire bu simple la déjà retrouvaille feeñ na ci Sonko feeñ na ci. amoon na benn commentaire bu amoon ci benn bis ci ci xew-xew bu amoon ni mooy ban d'ailleurs moo waral photo bi di nekk ci uni mhm. mooy bi Abdoulaye Wade jógee France ñëw dalal Sonko fii nga gis ne et je crois loo gis dafay évoluer man jàpp naa ni ce qui s'est passé man maître Abdoulaye Wade et le président lenn lu mën a laaxaloo Sonko wala lu mu ko mën a sama gis-gis

mooy euh, ginaaw bi ñu jógee ci élection présidentielle ñu jékki-jékki ñu ne parti bi am na ay yeesal yoo xam ne tey jii dugg na ci ban def secrétariat bu bees soxali soppi juddu tey jii ñu teg ay fan ñu dem ca Masaalikul naan Macky sàll ak Abdoulaye Wade daje boobu am ñu génn wax ci bokk na ci Jeune Afrique ak ñeneen ñu ne luñ toggoon la bu yàgg dañ ko yekkee biir Masaalikul Jinaan kon mën nañ wax ni deal international bi Idriss Seck doon wax dafa mel ne tey jii danoo egg fi way wi daanoo. waaw jërëjëf xam nga mbir moom bu amee dafa am lu ci war a wax lu wax lu ñu wax ak lu ñu xalaatul wax baat boobu nga wax ngay deal man dama ko ñemuloo boole ci lu Serigne Touba laa man pourquoi ñeme ma ko Serigne xamu ko toxu ci waxu ci. wax lu ci donc lépp li nga xam ne dafay niru diil wala ay compromission wala loo xam ne si ci ginnaaw nit ñi lañ koy def te du jàmm Sëriñ Tuubaa boobu donc may wax ci contexte bi mooy que ni li xew ñett nit la concerné ba doon njëriñu réew mi mooy lan Abdoulaye Wade ak Macky Sall ak kan Serigne Mountakha sànq maa ngi wax ci biir waxtaan daan ni Serigne Mountakha de béy bi Serigne Touba bi noonu am 1929. lu neuf ba deux mille dix neuf buy soog a réalisé wu kon mille neuf cent quatre vingt quatre ku jàngoon béy bi da nga war a xam ni deux mille dix neuf dana am lu xew te li xew sëñ Mountakha moo koy jiite lu tax kenn xalaatu ci mooy que Serigne Touba mbiram amul cat Serigne Touba mbiram amul tàppale Serigne Touba mbiram amul njuut njaat ci ni ma ko xam la preuve contexte bi liy amee ku ne xam ne ni contexte ni ko xale yi di waxee contexte mbégte lañ ne contexte jàmm contexte salaam. ndax xam nga ni contexte bi sëñ Mountakha ñëwee ji la gendarme amoon problème ak élève bi mhm. solution bi ci boobu mois boobu la fay est-ce que xam nga ni contexte bi sëñ Mountakha ñëwee contexte boobu la ne coow li am ci histoire du Sénégal ci contexte boobu la la euh, professeur Iba Der Thiam def miracle ba am ni ñu ngi jéggul te xam naa dina reversé foofu donc contexte boobu bu ñu fa ubbee lu toll ni Masaalikul Jinaan nga xam ni que bu sëriñ bi toggoon julli ba pare ñaari taalibe toog fii waxuma Ablaye Wade waxuma Macky Doudou Wade toog fii Moussa Ndiaye toog fii ñoom ñaar doxuwuñu jàmm wala waxuñu jàmm wala jubóowuñu sëriñ bi julli ba pare deful li mu war a def kon xam nga ni kon danañ di ah suñu sëriñ bi naan waaye du Cheikh Mouta sëriñ Touba donc contexte bi mu sàkk woon Massalikul Jinaan pour toroxal seytaane contexte boobu la ñëw parce que seytaane booba ko laajee fu mu dëkk daf lay wax ci diggante doom ak baay daf lay wax ci diggante jëkkër ak jabar daf lay wax ci diggante ay mbokk donc bu seytaane doxee ci diggante ñaar ñu Cheikh def li mu a def que kilifa diine ba liñ ci gis am ci ñun de amuñu commentaire buñ ci di wax waxi diin xalaatuñ ko tey xalaatuñ ko la mais buñ euh, buñ dikkee ci jàngatu politique bi li sëñ bi def ñu ngi koy rafetlu ñëpp ànd nañ ci parce que jàmm moo gën ay mais bu ñëwee tey jii ci politique bi maanaam ñoom ñaar fi ñu tolloon ba jëli fi Karim Wade yóbbu ko ab Abdoulaye Wade def fi lu ne ñëw ci ay élection menacé dem fi gine ñëwaat ba tey jii mu ñëw daanu ci lii mu mel ne dara musta xew ba tey ji ñu ne am na ay renouvellement ci partem jël na Bara Gaye teg place Omar saar danoo war am na sax ñu naan ñi ngi fëgg buntu dialogue bi kon am na lu xew. non dafa am parce que secrétaire national bi ku ne xam ne moo jiitu la xew Massalikul Jinaan mais nan bàyyi Ablaye Wade bu ñu ko tuddee tudd Macky Sall rek xaw ci roof Karim Wade dëgg la mën naa bokk ci li waral mbir mi mais dama ne Karim Wade rek Macky Sall mënul na ko def lépp lu ko neex du tee mu ab lay Wade kon Macky booy xool ñaari mbir a foofu. li mu def Abdoulaye mu naqari ko ak li mu def Karim mi nga xam ne tegu ko ci yoon te Sénégal gépp jàpp ni convoqué nañ ko jàpp nañ ko tooñ nañ ko tëj nañ ko exil nañ ko ci lu dul yoon ça il faut nit ñi bàyyi loolu xel li ci des national bi ngay wax noonu non Abdoulaye dafa am ñu mu dénkoon bi mu leen dénkee dem nan benn moment ba li mu bëgg wala li mu sàkku ci ñoom defuñu ko mais nag am na droit parce que moo yor cëggal guyam am na droit ñi nga xam ne que ñoo nekkoon ci bopp bi mu changé leen comme ni mu changé woon ñi jiitu woon tegaat leen ci donc am na droit jël keneen tegaat contexte yi bokkul bii affaire Massalikul la mais Massalikul lële mais li Ablaye mais Gallo li Ablaye Wade li Macky Sall def Ablaye Wade gëm naa ni Omar Sarr Babacar Gaye ak El Hadj Sall El Hadj Amadou Sall defuñu ko Ablaye Wade mais nan la ab Ablaye Wade mën a dem tey jii ba mën a jox loxo Macky Sall ñu ànd mu gunge ko këram te tey jii muñal boobu mu ko muñal ban tool foofu est mu que ko woon muñal ñëlee ba nu mën a àndaat doon benn waa loolu moo tax nag may rebondir ni diggante Abdoulaye Wade ak doom jeneen doom junne rafetalaat parce que Abdoulaye Wade la kenn mënta natt degré de générosité mm. Abdoulaye Wade la kenn mënta natt mbaaxaayam boo fi déggee coowam mag diw ba tax la ngay wax diw loo ko war ta wax ëllëg si biir bu koy woo di ko jéggal gàccaale ci li may wax fu li warul moom mooy suñu frère yi nga xam ne que il faut qu'on l'accepte aussi danoo fauté Abdoulaye Wade sanctionné mais bu loolu ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci wet nañu fexe Macky Sall fi mu mooy la personne super moo cest à parce que cër bi ko yàlla jox la kenn joxul donc moom bu amee bu wàccee boppam ba fekk Abdoulaye Wade toog ci ndigalu sëñ Mountakha mu jox ko loxo baalu àq maa ngi ñaan suñu frère yooyu nga xamee ne que bis bi am na ci ci bi ñoom tamit ñu ñëw def la même chose ab xam nañ këram xam nañ fi mu nekk buñ demee ko parce que Abdoulaye Wade mën naa baal mën naa baal ku ne mais tamit euh, bu ñu gisee logique bi mu taxaw pour jàmm am day jafe parce que mu mënu jógee Massalikul Jinaan ñëpp gis ni apaisement mi ngi am dal mi ngi am mu dem daje ak ay nit ñu dem toog ñu ne léegi euh, dialogue bi sax euh, kële ci waroon a représenté di Omar Sarr din nañ ko léegi jël nañ kii di Bara Gaye ñëw teg ko ngir mu teewal fa PDS jël Doudou Wade teg ko ci côté boobu kon mun a wax la logique bi mu nekkoon ba léegi tey ji nekkul ci logique jàmm mais mi ngi ci logique jàmmaarloo Ablaye moo wàcc ci logique parce que du woon dialogue bi la kenn parce que dialogue bi Ablaye demul dafa posé woon ay conditions. conditions yi nag quoi qu'on puisse am na lu mu doon lu loo xam ne mi ngi am parce que li ci mujj am mooy libération Khalifa Sall dafa boloon ci conditions yi mu tegoon déjà loolu am na. xëj na des na leneen loolu mi ngi ci kanam mais en réalité fi mu représenté fi mu dem jëlee fa Omar Sarr représenté ko fa par Bara Gaye ak euh, Doudou Wade. Mm. kooku bi la front de résistance foofu logique sur logique ki représenté parti bi. mooy soit le président du parti wala ki nga xam ne que yor na rôle bu mën a distinguer ci parti bi. quoi qu'on puisse dire secrétaire généraux yi ak généraux yi même Bara Gaye moo ci di jëlee ni ko dama représenté PDS c'est tout à fait logique. merci euh, dañuy areeraat tuuti ci li nga expliqué sànq ci problème mu dil bi nga ne lu Sëriñ Tuubaa dugg doo ci dugal dil bul ko ci dugal parce que dugg ci parce que xam nga mbir mi ni mu demee mooy nit ñi bu ñuy wax sëriñ Muntaxa li ko war la def maanaam jubale ñaari jullit yu mu jàpp ni xuloo nañ moom yu mu jàpp ni xuloo nañ laa la wax léegi bu nit ñi di wax di ñaar ñële moo xelut moo dalut xelu sénégalais yi mais pas sëriñ Muntaxa pas mbiru ay murit ñaar Ablaye Wade parce que dañ koo yàgg gis lëndëm muy woo Idrissa Seck ñuy dugg muy dil ci suuf ak parce que bu ñuy wax rek foofu lañ ko jëmale ci ñoom ñaar mais pas que ci sëriñ Muntaxa. mais foofu tontu bi non foofu nag nga war a tontu mais boo ñëwee jël affaire bi bëgg ko yóbbu. foofu foofu dina loolu doon tontu bi du leer. xam nga a tontu waaw. parce que dañuy nit lu loxoom dugg rek ma nga ca xam nga boo ko jàmbee lu yàgg yàgg da ngay màcc màcc sa loxo rek si ngay mujj. Hmm. xam nga tam bëgg ba kenn ko nax. Hmm. waaye loo dof dof dof dof sëriñ Tuubaa du la nax. Hmm. kon ñee mënuñoo teg seen dir ñëw jeexale ko ci sëriñ Tuubaa. <laughs> xam nga yaa ngi dem yaa ngi may tontu li Idrissa Seck doon wax parce que dafay non c'est que fi mu toll yaa ngi may tontu yaa ngi jël la Idrissa Seck waxoon moom nga bëgg a jël déglu ma la naxu naxuñu naxuñu ñii bu ñuy nax population bi lañ bëgg a nax mm. population bi ñoom lañ wax population bi lañ bëgg nax mais ñoom réeroowuñu waaw mais xam nga loolu la nit ñi di wax waaw mais nit ñi wax am nañ ci droit waaw am nañ droit xool mbir ñun ko commentaire ñu jël ko defe ko noonu même man dama jàpp ne man sama leader li tax nit ñi wax kenn dur ko ko bëgg mooy dialogue te 2014 waxoon na Macky Sall di nga dialogue mhm. di nga dialogue mooy dinañ toog waxtaane réew mi waaw am naa ne kenn mos sa dégg mu ni Macky Sall dinañ waxtaane waxi Karim Wade waaw dinañ waxtaane réew mi rek lay wax parce que réew mi moo ko intérêt parce que aussi am naa dafa am benn responsabilité bu historique ndax dafay bàyyi réew mu muy tabax jóg bàyyi ko fekk ay nit buñ ko yàqee dafay mel ni lam tabaxoon kenn veyewu ci mm. donc loolu mooy problème donc moo tax su bàyyee dara ci réew mi il faut waxtaan boobu muy wax se par rapport ak réew mi nan lañ koy defaree maintenant bu fekkee ni li avancé réew mi defar réew mi ci euh, bu fekkee ni Macky Sall wax ak moom dafa aju ci loolu mais kon Serigne Touba visionnaire la ndax xam na ni ñaar ñii bu nu waxul. Gallo kenn ku la joxe xalaat c'est que c'est que kii bu la bu la indilee titre bii ne la Sonko lañ lan. Sonko agneau du sacrifice. agneau du sacrifice. retrouvaille Macky retrouvaille Macky Wade. waaw mais man maa dul nangu diggante Abdoulaye Wade ak kii ngeen indil ma Sonko di ko ci teg. non ah, kay dinañ ah, Sonko kay fi mu ne nii moo xew. non non non non d' loolu mën na am parce que. waaw wax dëgg yàlla fu ñu waxee Abdoulaye Wade ak Macky Sall ba noppi. Mhm. teg ci ñaari fan teg ci Khalifa Sall. Mhm. képp kuy politique woon nga wax lu mu waxee ci yow. mais la dafa am lu Abdoulaye Wade waxoon Sonko dana ko woon su Macky Sall dina la tëj waaw waxoon na ko def voilà da ko waxoon. kon nag kon nag kon nag yéen vraiment nag kon jàpp naa ne kon question yi nga ñu posé yéen a gën a xam xamul tax. Hmm. parce que vous avez affaire avec un visionnaire. vous avez affaire avec kooku visionnaire wala un grand. est-ce que bokk na deal bi. waaw non non non. ñu ngi Sénégal yëpp ko mën a fàtt. waaw ñu ne noonu nañ ko écarté comme moom àndul ak système bi. waaw loolu la de. ay Karim mën a dugg ak Khalifa ak yooyu. non non non xam nga xam nga problème yi bokkut. Mhm. xam nga Sonko c'est quelqu'un qui fait jeune la bu def politique. man ma jàpp ni il a le courage de ses idées quoi qu'on mi ngi def li mu war a def ni mu ko war a defee mhm. mais nag tànk bi ma taxawoon man bi ñu accusé Karim ma ne ñu ko accusé nañ indi preuve yi loolu moo doon waral ñu may gis ci plateau yëpp di ma gis fépp may wax li nga xam ne loolu laa war a wax tànk yooyu laay taxaw wax ni Sonko bu fekkee ni am na preuve sur les 94 milliards man je prie pour mu génne ko xam nga lu tax parce que aussi am na lu ñu naan way na mbuus boo boo bàyyee ba contexte boobu ñëw da ngay sonn politiquement parlant. parce que en réalité gars yi dem ci kaso bi yëpp liñ bind sax presse bi day xaar suba ne est ñoom la est que ñoo ko bind tàmbali indi ay jeexi jaaxa donc encore une fois li ma ko dégloo démb mu wax mu ne ñii danoo jaar ci tànki yàq casier judiciaire am. Mhm. guerre nag day saf mondial. bu doon may mën a de li nga xam ne que loolu laa wax ba waral ñuy jéem a yàq sama casier judiciaire ma génn ko teg ko ci taabal ji. Mhm. mais quel que soit degré de procureur moom ah. pour am ba léegi procureur ni mu defee ci xalifa ah. defee ko ci Karim defee ko ci Aïda Ndiongue defee ko ci ma Massamba ma Mademba moom mënu ko def ci mbir yi de assemblée moo tey sama xel xaw ma nag waaw man di loolu laa doon xeex ci wàllu justice bi ni muy demee hmm. léegi nag Sonko loolu xeexam la moo ko war a xeex pourquoi procureur traité wu ko noonu wala est-ce que moom Sonko preuve la yóbbul euh, procureur wala daf ko daf ko daf ko dafa dafa yóbbu foofu plainte mais na procureur génn wax wala loolu procureur li nga wax nii hmm. loo ko lan laa koy wax te tout citoyen et préjudice la koy wax parce que procureur ku ne xam ne ni muy taxawee ci dossier judiciaire yi kenn rafetlu ko loolu muy dëgg suñu justice bi très sincèrement am na sooxaay bu mag a mag a mag a mag parce que ni procureur di doxee ak ni ñu yaakaar ne noonu la war a doxee bokkul ayca ñi man damay ñëwaat rek tuuti ci Babacar Gueye mu nekk xaw ma nekk wala nekkoon boog biir PDS nga xamante ne réforme yi nga xamante ni euh, président Wade indi na ko neexul ñenn ñi ñu ngi koy wax sànq le cas de de de de Sarr nga xamante ni remplacé nañ ko ak ñeneen waaye tamit dama dégg dama gis tey ci euh, Le Soleil journal Le Soleil mu ne le PDS ressuscite ce qui lui a fait perdre le pouvoir en 2012 est-ce que nekkul yëngu-yëngu yi nekk ci biir parti bi lay wax. waaw xam nga aussi loolu. am na am na ni mu ko waxee mën naa waxe benn contraire bi te du baax ci waxal ay ca su ma neexee ma ñu ko yàq ñu ko ñàkkaloo dem bi du jëlee na leen. raxas na leen waaw justement xam nga loolu c'est relatif. mais nag euh, ku nekk nag ak sa gis-gis. Mm-hmm. parce que li may wax léegi rek gis nga que muy Babacar Gaye ka muy mm-hmm. Omar Sarr que muy Maître Sall. Mm-hmm. c'est-à-dire lépp nga mën a wax ba mu des ni xeexulum PDS. loolu nag moom nañ leen ko très moom. nan leen ko eh, xeex nan jabu mu ngi jabu indi leewal bi jabu indi. ataay da xamul mel. gan ganale njëkkal jox galo def gerte takkusaan dëgg la de tubarkalla. Eh, eh, <laughs> gerte takkusaan la waaye di ko jeexal. neex na de neex na tubarkalla. ah waay jabu waay. donc moo tax moo tax may wax ni. Mhm. que ce soit muy ñoom. ak képp mhm. ku nga xam ne que am na lu dox sa diggante ak Ablaye Wade. Mhm. man dama leen di ñaan gis nga bu ñu xaar. ay jubóoleeg ñu ngi def yëfu tàkku dëgg nag. parce que ay doomi Ablaye Wade lan. xam nan fu leen Abdoulaye du teg. ñu sonn ci PDS ñu sonn ci PDS. donc nan dox ñoom li ñu war a dox bañ cee boole kenn dem gisee ak Abdoulaye mhm. dem ni ko papa kat lii moo amoon lii am lan mooy waxtaan. Mhm. bu ko defee yoon kenn nekkul ñoom ñu xool naka la koy doxal. léegi man PDS pa bi mi ngi fi mais fi mu nekk nii euh, xam nga secrétaire général moom congrès moo koy moo koy fal non mais kañ ngeen di dem congrès pa bi joxe place bi. non parce que jusqu'à preuve du contraire dégguma ñu ne kii mooy. waaw ba léegi. Hmm, hmm. président Wade mooy secrétaire général national. ah bu yemuñu temps yi dem congrès xamul tax. lu tax ñun bu ñu demoon congrès la ñuy fal. mënul xam na parti bi fal leen fal la fal keneen ak keneen ak ñoom Baara Gaye ak ñooñu. kon kay war moom à la a wàcc jox keneen. waaw merci beaucoup rek dellusi nga ci li ko ci bar mag bar bàyyi ci réew moo tax ngeen bàyyi ko ci bopp parti mais justement parce que bu fekkee dañ ni xale du ngeen yóbbu Ablaye Wade bu fekkee dañ ni xale di yéeg ci kaw du gis hmm. mag toog ci suuf gis mais mu toog nekk mag ñi bu ñu mooy combaxtal gi ca di xaar te ñëwagul loolu ngay bañ a wax non non Karim moom kaay ma la benn biir Karim moom waaw ca dëgg dëgg li mu daj benn responsable daj Karim li mu daj bu dee ci métit oui bu dee ci méttit. Gallo ñun ñu ko daan fekk kaso. Gallo il faut arrêter mos tuuti ak moom ci laa jëm ah, bu dee ci méttit la. parce que bu parce que boo nee ñu Karim li mu daj kenn daju xam nga. ci lu neex wala. bu dee neex. mais bu dee ci leneen. boo ma dégloo doo ree da apprécier. aja ñëwal merci. su ma ne li mu daj. Mhm. dafa am ñu bokkal parti bi. Ah. kenn ñu teg ko ne ñu teg la ay méttit mhm. moom mu ëpp ci lam def ca kaso ba kaso ku ne xam ne ne méttit la kaso Karim léegi nag kenn du ma waxal ni ma Karim responsable PDS bi moo ko ëpp ay moyens yu mu def ci kaso bi amul mais Karim rek lañ ci damm tànkam ci biir kaso bi wala ay man maa ngoon kaso luy damm ah oui Karim Karim Wade lañ fi dóor ci kaso ba damm tànkam man maa ngoon ci kaso ba kenn ñëwee ma ko na na bu ngeen ah, toogee bër bi di ay journaliste ñi gëmuñu ko journaliste yi waxoon na ko mais gëmuñu ko. mais mais loolu loolu loolu. du lu ñuy loolu du ñuy wérante. Ah, yéen ñii mën naa doon sax ab rëq-rëq waaye li ma leer ba leer mooy. <laughs> li ma leer ba leer mooy xeex la ñu teg ko lu mu àttanul ba tànk dama dama jóge fa ba pare mu mu ëpp lam nekk ci kaso ba ëpp fa la man dem naa ci kaso bi mais lam fa daj dajuma ko hmm. tey nag bu dëgg dee dëgg bokku ñun yàlla bindee c'est bon moom métis la hmm. man xëy na sax maa waroon na gën a ñemee li nekk ci biir kaso bi mais Karim mënu ko gën a ñemee bu métit métit yooyu jàllee hmm. moom nekku fi waaye loxum génnul ci parti bi Karim ñi ñëwoon ci parti bi kon nag yow yaa ngi confirmé ñiy wax ñi Karim ma dowa waaye ba tey moom mooy buum mooy bu mu ci parti bi non du ko confirmer noonu nan nga koy confirmer duma ko waxe noonu noo koy waxee du ma waxee noonu damay wax ni bu fekkee ne ñi nga xam ne que xalaat nañ ni Karim am na lu muy yàq ci parti bi li muy defar moo ëpp foofu laa bëgg a waxee parce que parti aussi dafa laaj ay mbir yu ko yor parti boobu nag waaw ah non mais comme ñu koy xam nga xam nga fii sunu sunu ginnaaw mhm. bene mhm. président ba fa nekk li ka li daloon ka li dal Karim ko daloon dañ ko génne woon Patrice Talon mm. non ko génne woon dëkk bi mm. mu nekk ca biti waaw di diriger li muy diriger ci biir gars yi préparé ko terrain bi xoolal exemple bi mu jël comparaison n'est pas raison bàyyi sa yi ngay def wax ni damay wax ni li ngeen li ngeen ñàkkan du am fii am na fu mu am fii waa léegi lan la ñu mën a jàpp ci PDS ñu ngi jëm ci ay local waaw li ñu mën a jàpp ci PDS moom waaw garab la goo xam ne si bis bu ñu feletee branche bu mag yi ba ku ne amul kenn yaa ngi jàpp ma wax la lenn garo bétti xam nga affaire bi nu mu demee dil bi yëpp mën naa laa wax Ablaye Adda kii lu waxtaan. kan ak kan Ablaye Adda yaa ngi fa woon. non dama def Seck bon il faut analyser xam nga mooy lan. Sénégal moom benn dil la fa waaw mais da nga may déglu. mooy sa diggante ak <laughs> loolu ñu nga jàppoon ci yoon di wax nañu. non mais dëgg la. dëgg la déglu ma rek déglu ma. Gallo xam nga lu tax ma wax la la bëtti. mooy Macky bëgg na fee jóge daf fiy jóge quoi maanaam jeexal na ginnaawam bëgg na ko wattu léegi nag Karim ne ko tëjal leen rek mu mën a ne tëjal leen ma Sonko mm. ma ñëw gañe terrain bi bu ma gañee ah, loolu la ah loolu rek moo fi nekk amul leneen loolu nga yaakaar ah mais mais mais leneen la na fi ne loolu mooy dil tey jii sonk rek moo fi mën a falu topp njabootu sàll gi bu du Sonko ko koy topp mm-hmm. Karim mii affaire yi jeex na loolu rek moo fi ne. <laughs> te man sax saa li ma jaaxal. Euh, xam naa kii mi ngi naan jeexal na. Mhm. Omar mu baal ma ko rek li ma mhm. jaaxal ba léegi Abdoulaye Wade dafa leeralagul lu taxoon élection yi mu ni tekk man lu ma jaaxal la. léegi nag ah, yéen nag ñu wax. waaw ba léegi man euh, Gallo mhm. lu ma jaaxal la lu tax Ablaye Wade am fi njaboot mu Idrissa Seck ak Madické Niang moom mu ñëw boycotté waaw ba léegi kon mooy dil bi ñuy wax ba léegi man dama gëm ni yàgg na du tey xam nga Ablaye ndeysaan dama yaakaar ne sax yàlla na kanam yi gudd ma ni waaye plus ñu koy sosal rek. mu ngi gën a yàgg. ndax li sos la. ah néewul tekk ah, néewul tekk bàyyi ma ñëw li tam ma ko leen ko. waaw waxal. mais Abdoulaye avant muy ñëw la njëkk a wax ni. Mm. bu leen dem élection. waaw. kenn dégg la mu ñëw am na baat bu mu waxoon ñëpp di ci wax naan nee na na lakk isoloir yi. Mm-hmm. xam nga loolu lépp du nekk fekk de position la. Mm. mais bi nee ba ci cëppaandaw bi militant yi ne président yaa nu jàngal voté dañuy voté ci. waaye nag ku ne xam ne dafa lim ay tur. Hmm. ni ku mu neex. nga ànd ak diw. nga votel en tout cas nga bañ a votel ñaar ñi daal la wax Macky Sall ak ak Madické koy jël na position li des si njabootam koy ñoo waroon a xool ña ca des naka la leen di votale mais Abdoulaye di jël na position jël na ko contre Macky Sall parce que juróom lan mu ni ñett ñi ku mu neex votal leen mais ñaar ñi bu leen ci bokk kon koy ko wax dëgg yàlla nag. waaw ah, dañuy tëj waaw seen waxtu jeex na de. da ñaari condition ngeen tegoon pour dialogue benn bi mooy xalifa génn beneen ban la mooy Karim ñibbisi kon nga dee droit yi nga xam ni que Macky Sall xañ na ko suñuy responsable man lañ ko delloo su ma nee Karim ñibis man weesu naa Karim ñibis weesu naa foofu li may laaj xam nga mooy lan. non ci la. waaw non waaw non nee d' accord naa mais weesu naa sax ci pour man sama wàllu bopp li Karim bëgg laa bëgg pour moom mooy lan mooy que ni waxuma ko amnistie mais Karim dañ koo tooñ dama ni dañ koo tooñ léegi Nations Unies. commu euh, groupe de travail ba fa nekk def seeni saytu xool dem ba xam ni kari Wade mi dañ koo tooñ mu bind Sénégal ni ko procès bii nga àttee Karim ba lii am ci amul sens c'est nul et non avenu zéro li Karim doon wax zéro plus zéro égale zéro léegi nag lii solution mooy nga reprendre procès bi indi xale bi yàlla ko ci ay droit Karim bëgg ko ko baal dafa bëgg ko réviser procès bi lañ juumoon notaire yan woowoon hmm. ñu wax dëgg hmm. daan ne ah ñun ko li ñu xamee mooy këyit këyit bii kat turu Karim newu ci bii ba Bourdieu ci ne nguur gi neen dindi leen bii ba Bourdieu leen turu Karim ngir ko koo tëj loolu lañ bëgg ñu réparé ko. léegi mais yow li nga wax ni yow loolu du mathématique de ah, mën na ne waaye léegi zéro mais mais mais kon léegi ñu bàyyi la nga tëjee ci lenn yaa yor propagande yor organisation. Mhm. yaa ngi ci liggéey bi pour PDS gën a yaatal ay banqaasam parce que fi ne nii moom gëm naa ni da doon naaw ay dumfam du ruus. Gallo boo wax non en parce que adjoint laa ci Assane Assane Ba. Ah, Assane boobu mooy titulaire bi mais liggéey bi ñu mooy. moom secrétaire général national la li ma wax rek mooy. Hmm. gis nga yàlla xam ne ne boobu man bu ma ci bokkul woon parce que man ce qui se passe entre man ak Abdoulaye Wade de deret la de Kébémer xam ngeen loolu hmm. su ma ci bokkul woon sax nan ma xamee woon lan may di sàkku xam-xamam di sàkku clairvoyance am li mu bëgg ñu def ko li ma leer ba leer mooy bu ñu tegoo ci raay bi dara duñ jënd dinañ def comme ni ko Baara Gaye di waxee ànd doxal xam nga lu tax. Hmm. parce que bii ñu fi nekk nii du équipe boo xam ne si dañ ko remanier totalement am na ñu fi nekkoon ak ñeneen ñi ak seen expérience am ay mag yu ci dollee li ñu ci nekk mooy ndaw ñu bari ñi nga xam ne que ñoo ni président comme ni naan wuy monsieur président boole ñu boole ñu parce que danoo am yëg-yëgu liggéeyal la. Hmm. danoo am cawarte liggéeyal la danoo am. détermination li nga bëgg ñu def. ay ca seen waxtu jeex na donc ñooñu ñëpp bu ñu ànd ak ñoom. je crois que le PDS propagandam dafay parce que nous n'avons un produit fini produit bu neex a jaay produit bu courageux mooy kan suñu candidat Karim Meïssa Wade ak suñu secrétaire national euh, maître Ablaye donc présenté ñooñu ci Sénégal doo jiw. parce que boo xoolee telle infrastructure boo xoolee lu fi baax ku ko def nga ne Ablaye bi mu koy def kan la woon xëy na lii ci sous la directive de Karim Wade donc. campagne yooyu nga yóbbu. <laughs> jërëjëf euh, allo Sall ñu ngi baax di ko sant. doon membre comité directeur bu parti démocratique sénégalais di secrétaire adjoint. wallu organisation ak propagande parti bi ñu boole ko ci mu ci doxal ñu koy gërëm am mbégte nag ci teewaay bi di la gërëm bu baax Betty. merci beaucoup Amar Bun Xataab Gueye cant ak gërëm ñeel na la ak sa invité ñu gën ko xam ci Galu Tall bokk ci commité directeur bu PDS waaye nekk secrétaire général adjoint euh, euh, chargé de la propagande et de l'organisation au sein du parti PDS donc ñu ngi koy jaajëfal bu baax nga nuyul ñu nag sunu papa sunu maam maître Abdoulaye Wade. ñu ngi koy ñaanal yàlla gën a guddal fanam yàlla gën ko kàttanal voilà waaw saal bii la mujj dëgg la dëgg la mu toog fii moom Alaaji Sidi vraiment Alaaji Sidi mhm. ñu waxtaan fi am solo d'accord donc faji daal yàlla na jëm kanam ay ca mais ko saaf xanaa men ma ne nga bàyyi gerte gi lekk nga gerte gi yëpp ki ki lay wut du am lu mu yëy galo bàyyi li nga def waaye bàyyi gerte gi ndekk na gerte gi naan na attaaya ji ay ca mi ngi noonu nag ñu daal di dem régie ñëwaat dalal euh, soyi bu borom victime du net